mooy ñun liggéey moo ñu tax a jóg léegi ñun corona bi ànd nañ ci ne dafa am feebar la te dafay reye kon ñun lépp loo xam ne mu dañ koy def pour ñu pour ñu moytu ko ñu ngi koy def waaye luñ mënul nangu mooy waa marché HLM ñu bàyyi leen ñuy jaay waa marché Sandaga ñu bàyyi leen ñuy jaay marché hebdomadaire ñu ñu arrêté leen te marché Sandaga ñoom dañuy wàcce conteneur u million millions kooku ñàkkul mu ne am compte bancaire am ak at kaatam kii nag kaar lay wut boole ko 200000 francs wala 150000 la am jëndee ko balam bal boobu ci lay génnee dépense am ci lay génnee euh, euh, euh, lépp lu muy def ci ci këram da ngay gis koo xam ne day jël 2000 francs di ko di ko épargner par jour 2000 francs boobu ci lay fayal doomam école ndax da koy épargner 2000 francs ba muy 30 jours muy 60 000 mu dem fay ko école formation yaakaar doom jooju bu génnee ëllëg tekki génne ko ci coono bi mu nekk léegi kooku boo ko ne doo liggéey doom ja moom dàq nga ko dootul jàngi du lekk nag waxatu ko doom ji dootul jàng du lekk kon nag monsieur le président ñu ngi lay ñaan ñun waa marché luuma yii nga dimbale ñu 12 jours yi nga décrété contesté wuñu ko ndax décret bu xasee ba jëm kan mënatu ci dara waaye 12 jours yi bu mu jeex nga di ko renouveler ndax ñun dañoo sonn mun nga ñoo encadré ñuy sol masque di def ni waa HLM di def ni waa Sandaga gannaaw ñu am doole bu ñu leen arrêté dafay am impact seen liggéey ki amul doole boo ko arrêté moom la gën a sonal kookoo gën a ki nga xam ne mën naa génnee dépense dépense ak ki nga xam ne day xëy di ko wuti du ñu benn kon nag luñ loolu la ñuy ñaan te luuma bii ñun suñ marché bi ëpp nañ 3000 personnes te ñi ciy dund ëpp na loolu ndax puus puuskat bii du xëy puus tey te dafay puusal nit bu xëy ngoon ci lay yóbbu bagage am oto bii buñu buñ jaayee marché samedi ngoon jot bu ñuy yóbbu oto bi bu ñu yóbbu bagage yi dimanche oto koy yóbbu chauffeur a koy dawal coli woowuñ ki ciy liggéey dafay dafay dafay gagné moom itam wàllam ci marché bi kon moom impact bi mu am ak emploi yi mu dafa bari léegi ñun euh, deux mille vingt bi février dañoo arrêté trois mois la ñu arrêté ñu toog ànd suñu ngor xeexuñu xuloowuñu ba ñuy dimbale nit ñi boolewuñu ci taxul boo benn yoon nag ñu kaas ko ba léegi sii kenn joxuñu aide kenn defuñu dara te ñun ñoo gën a sonn ci corona bi ndax ñoo gën a néew doole te ñun lañ njëkk a arrêté ñu toogaat ba bii yoon ñu defaat nañ ko deux pas deux mesures yooyu ñuy def ñun moom lañ bëgg a wax ne lan moo ko def dañ leen a wax ne leen corona bi ci luuma bi rek la nekk waaye nekkul feneen wala leneen ñun gëm nañ ko gëm nañ ne feebar baa ngi waaye nag li ñu wax ne fii rek la nekk moom lañ mënul nangu léegi ñun li ñuy ñaan mooy nañ ñu bàyyi 12 jours yi bu jeexee nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñun daal loolu la ñu bëgg loolu la ñuy ñaan ndax sànni wu ñuy xeer ñu kenn mës ta dégg marchand ambulant mu ngi taali xeer kenn mësu koo dégg ñun li ñuy def mooy ànd ak suñu ngor ànd suñu dignité di liggéey normal te mus Macky Sall na nga koy yëgal ne président de la république muy Macky Sall président de tous le sénégalais maa ngi koy yëgal ne ko conseil bi ko mën a waxal li peuple biy dund mooy conseil buy dund li peuple biy dund conseil buy jaay fagi jaay conseil buy jaay jën waaye conseil boo xam ne voiture kente la yor yow dëkk ci quartier résidence ya bu la waxee la nit ñay dund ca suuf doxu la la am xamu ko xamu ko kon nag ñun nag fexe bu am ñoo xam ne ñoo koy waxal li ci suuf wax ko li ñuy dund ñun daal loolu la ñuy ñaxtu loolu moo ñu fi indi sonn nañ nag fa sonn yem bu ñu ci dimbalee daal mooy li gën exiger ñu nag ko exiger wuñu contesté wuñu waaye li ñuy ñaan mooy du jours yi bu jeexee bu ñu ko renouveler nañu bàyyi ñu liggéey loolu daal la ñuy ñaan mën na dëgg yàlla